il faut faire confiance à ces reporters qui étaient sur le terrain di jël les résultats di ko joxe à chaud muy jàll ci des chaînes de télé et de radio crédibles donc su fekkee dafa am un groupe de presse bu bëgg a manipuler l'opinion sa on va pas laisser passer su fekkee aussi dafa am un individu irresponsable muy Boun Abdallah Dionne parce que li mu def c'est un acte irresponsable tu n'es pas habilité à donner des résultats. Tu n'as pas le droit de brûler ce pays. Alors tu dois calmer ta joie. Calme encore ta joie et respecte les Sénégalais. Tu ne peux pas brûler ce pays. ku narataal dëkk bi ci sa kaw lay tàkk bun ñu ngi lay woowaat encore ci raison nga am raison garder nga bàyyi sa yëfi xale yi ngay def su fekkente ni sa mentor moo la koy defloo xamal ni Sénégal du moro mu Macky Sall Sénégal moo ëpp fuuf maki Sall kon arrêtez vos jeux quoi seen yëfu xale yi ngeen di def arrêté leen ko.